salaamaaleykum mbokk yaakaar na nag tey dañoo toog ak suñu yaay macha allah muy soxna Aida mu Serigne Saliou voyante macha allah yaay Wally Balago Seck parce que du ma ne soxna Aida mu Serigne Saliou rek voyante te waxuma ci euh, macha allah parce que ñëpp dañ koy dàkkaale ne yaayu Wally Balago Seck ñëpp yaayu Wally lañ mais moom mooy première yaayu Wally macha allah kon soxna Aida lañ toogal tey yaakaar naa min ngeen jotaay bi tey nag ñu moom war waxtaan moom ci loo xam ne euh, lu bari la loo xam ne instant moo xew instant yi mooy lëmbe réew mi muy match Sénégal Égypte mu waxoon ci loo xam ne macha allah wax yu yéeme te wax yëpp mu waxoon moo am tey moom la ñu nuyu rek xuus ak moom ci waxtaan yaay salaamaaleykum àdduna wërngal képp waaye maa ngi nuyu sama bunt ci sëriñ Touba Seexul Xaddiim di sëriñ taxa Bassir di ko ñaanal yal na yàlla guddal fanam waaye di ñaanal sama bunt ci sëriñ Saaliw muy sëriñ Cheikh moom sëriñ Saaliw ñaan yàlla njabootug sëriñ Saaliw gépp yal seen fan yu mel ni doj waaye fu tarxiya nekk muy Tiijaan Xaadir di nuyu waa Cambérène Cambérène mooy sama yeewukaay ndax maa ngi dëkk ci frontière bi diggante Parcelles ak Cambérène di ñaanal waa kër njabootu Baye Abdoulaye Thiaw gépp yàlla na yàlla def seen fan yu mel ni wu doj ci barki Seexul Xaddim waaye di ñaanal ñëpp bàyyiwuma kenn soxna yi Aida daal mi ngi si yaar soppe yi xarit yi ñu koy béggee te xam ko ak ñi koy bëggee tey mosuñu koo gis ak ñi koy ñaanal ñaan yaa ngi yegg si maa ngi leen di ziar leen jox seen wàccuwaay ak réseau internet yëpp ndax soxna Aida mooy loo xam ne site la wala loo xam ne da ngay wane nit muy télévision muy ñëpp soxna Aida fépp la ami soppe fépp la ami xarit ziar naa ñëpp. jaar nañ yëpp macha allah mais soxna si yaay boobu ñu dem rek ci match bi nga xam ne moo amoon diggante Sénégal Égypte macha allah match bi nag tiitaloon ñu bari parce que Sénégal demoon fële si Égypte Égypte dóor ko li moo xam ne moo 1-0 ñu tiit naan Sénégal day rek moo ko arrangé woon nil arrangé woon 1-0 woon ñu gis match bi métti woon trop nga génnoon ci wax yoo ci wax ba euh, ñu gis loolu yëpp nga waxoon mu am lan mooy secret euh, soxna ayda ci. Euh, waaw soxna Aida dafa maîtriser match nee bi may seet tàmbale ci xotti gerte te ma tàmbale ci xotti gerte nag baa xam nga ne ci match laa jëkk a maîtriser sama yëf la man maa ko moom. parce que dama taxawoon fii ak sénégalais yëpp euh, waaye dafa tombeek euh, yàlla ànd ak man. sant naa ci yàlla bu wér a wér sant ci sama sëriñ ba sëriñ Saliou Mbacké ndax moo ma dooleel moo ma dimbali ndax moom laa yaakaar tey ëllëg te lépp loo xam ne yaa ngi koy woote te ka nga yaakaar wala ka nga foog àndut ak yow da ngay barastiku waaye lépp loo xam yaa ngi koy def di ci ami jéego di ci amul yokkute jàppal ne ki nga àndal déggoo nga ak moom euh, match nag sama yëf la ndax boo xoolee ci CAN bi Coupe d'Afrique yaakaar naa boo leen demee VAR ak soxna Aida moom Serigne Saliou ci Coupe d'Afrique yi boo xoolee date xam heure xam ne match Sénégal bi def naa ci liggéey bu mucc ayib man nag duma kañu ne mana du ma kañu ne man a ndax lépp lu waaye di def bu ànd ak ndimbalu sunu borom waaye man sunu borom ma ma sàkk def ma may soxnam Aida moom Serigne saaliw mm-hmm. waaye bi ma ko defee ba pare dafa ànd ak ki dogalam def ma may taalibe dëkk ci réew mi nag dëkk Sénégal duma ma étranger mm-hmm. fi laa juddoo fi laa yaroo màggee waaye bi ma mënee dama ko yemale ci sama dëkk ak partout ba kenn ku ñëw da ngay wàll yaan si waaye sama dëkk laay wane preuve ndax nag Sénégal saa yu xewlee Sénégal saa yu ci ay guddi yaakaar naa bu ñu wëree internet bi bu ci soxna Aida maandoo toog jàpp njàmburam gii ci yaram bii ah yaakaar naa lépp dina leer de da ngay xam ne lii fa mu jëm du lu neex waaye bu soxna Aida àntoo kàdduum gii nga xam sama kàddu gii nag dama koo respecté. waaye dama koo bëgg ndax damaa bëgg ki ma yaakaar dama koo jox cër damaa jox cër sénégalais yi parce que Sénégal lan dëkk tiitar la man sénégalais laa doy na tiitar fi laa yeewoo sama njaboot fi la ñuy yeewoo te xam nga damaa am doom yoo xam ne fii ci réew mi képp koo dégg ñu ne la baax na mba àdduna sopp ko mba ñu ndawloo ko man soxnaay de su ma la nee yow sama doom nga dinaa fexe ba doo gis si sa yaay ji loo naan a cam moo tax ma am fooru su may seet ci sama seet gii nga xam dama ko jàng ci samay kër maam waaye dama koo donn ci samay waajur waaye dama ko maîtriser dama koo maîtriser maîtriser goo xam ne sunu borom daf ma cee jox loo xam ne munoon na maa def nag ah may karode mbaa mu def ma table à manger mbaa mu def ma fauteuil mais sunu borom daf maa def soxnam ay da mum Serigne Saliou les grands vaillantes ma def sama bopp nag les royales ci lii may liggéey te leer na ma ni sénégalais yi nangu nan ko ak dem vaar ak samay vidéo waaw match bi dama ko maîtriser damaa teg match bi dama teg programme bi parce que ñun ay sénégalais lañu joueur bi li nga koy wax pour mu dugg ci noppam enteneur bi teg footballam li nga koy wax pour mu dugg ci noppam ñiy seetaan match bi président de la république état am ah déedéet da nga leen di wax lu leer. xam nga ay boo leen rayul lu ñuul rek boo leen rayul lu lëndëm di du wax ñu leer match boo koy wax nit muy leer ñu koy seetaan ci internet da nga leen a war a jox lu dal seenum xel. ba bu ñu amee ci yow yaakaar di ma xaar internet di ma xaar tiktok bi di ma xaar war naa leen a mën a jog preuve yu leer yu wane ne match bi nii lay doxee man loolu laa gëm man nag sama seet sax ci foor boobu laa am du ma la laaj dara dam ngay bàyyi ma doxol loolu nga gëm macha allah ñu gis euh, rek euh, li nga waxoon ci match yi noonu la demee mais en fait euh, ñu gis aussi itam dafa mel ni da nga toog ak Aliou bi muy classé parce que tellement que avant match bi li nga waxoon yëpp classement boobu ñu tag bi match bi commencé rek loolu lañ gis mooy wax ji soxna Aïda waxoon ne en fait match bi dina dina dina dina tàng dina metti li ma wax dama ni leen match Sénégal bi tey ñu war a qualifier dem coupe du monde match bi tey na Sénégal gépp seetaan. match bi bu nu bu nu bu nu taxawee ci stade bi ñi nga daan toog ci banc tuusi tey ñoom la ñuy jël dugal leen ci biir stade bi suñu leen dugalee ci biir stade bi nee na doon classement bu mucc ayib mais ci biir classement bi joueurs dina ñu fubal fubal boo xam ne dina jaaxal sénégalais yi ndax fubalu tubaab la ñuy indi suñu demee ba ci digg bi def ko fubalu nawetaan njaay am joxal jóob jóob am joxal njaay ñu dem ba seetaan première mi-temps ñu dem jëndi soow mi saraxe ñeenti fruits yu bokkul naan ndox mi ndox yu sedd yi na te boo xoolee ci biir stade bi am na benn moment boo xam ne góol góol bi nga xam ne mooy góolu Égypte sànni nañ ko benn sachet ndox. dëgg ndox sànni nañ ko ko ci biir stade bi loolu boo ko indee ci sama ndox mi ma leen wax day nekk lu leer ma taxawaat ni leen football bi dinañ ko football football boo xam ne kenn duut kum dañuy football ba xeex. bu ñu footballee ba xeex nag na sénégalais yi daal te xam ne mbég la ñuy ñibbisee mais ci mbég mi nañu xam ne jam ñaajo lan dem na moto yi daw ndànk. ñu xam ne ci biir stade bi am na ay jigéen bu kenn xëm te nit ñi dañoo amee tension te am na ñuy fay koor ndax dañoo dëgmal weeru koor dama leen a wax lu leer ma ni leen dina am ñaf ak caw ak fic ma ne leen ñetti kàddu yii njunju doy na borom xel gàddul leen ma ko eh, waaw bi bi arbitre bi sifflé ñu demal première mi xam na dañ leen a ñaf benn ñu ànd ak ñoom di leen caw di leen caw di leen caw muy mitti marché bi di mitti ñuy daanu di gaañu ñu dem a dem a dem ñu wan leen football professionnel wan leen football wan leen football bu mucc ay football bu leer match bu legal ñu dem a dem a dem nag ba série des ci te neewoon naa leen ci coupe d'Afrique ba Sénégal ci foor bi nga xam ni kenn mësu ko ci foog ci foor yooyu lay amee match bi te bu kenn rayut bu kenn rayul ñuy déglu sarax yii ma leen di wax man soxlawuma ku ma woo soxlawuma ku recevoir man ki ma war a recevoir recevoir na ma ba pare muy borom njàppandal ak njuru nag daaray ndookaan ak borom njawaan nga ca ronu xay ga man ki ma recevoir muy recevoireur bu mag bi man ki ma recevoir mooy ku mu dootoo jeexal ba abadan daayi man te mooy maye te bu la mayee dootul ne kan moo la maye ti ba mukk da lay may ba doo xam fi nga jëm man kookoo ma dimbali kookoo ma may gis nga seet gi maa ciy seetkat bi nga xam ne maay royal royal gi nag boo gisee ma wax ci kattanu yàlla ak mbaaxu doole suñu borom li may liggéey bugguma ci ku recevoir ku def dinaa la ni waaw góor ku deful dinaa la ni defoo lii sarax bi dinaa ko baaxee sénégalais yi ba ñu jot suñu ferte réew moo tax bi ma duggee di leen musuma wax ci coupe làmb ji nag duma ci wax waaye ku ma seet si ma jëflanteeg yow te ñi ma seet si am nañu ay ndam. làmb ji lii laa wax ku ma seet si sama kër gi nga gis soxna Aida am ak moom photo wala soxna ayda waxante ak moom sama kàddu jëm ci yow man leer na ma ne di nga am ndam lii suñu borom dimbalee na ma ko ndax lii may liggéey su ma liggéey ba pare jëmul ci oto yu rafet yi te sénégalais yi feer nañ ci lu ma leen laaj ñu man ma koo jox waaye nag dama koy delloowaat sama askan moo tax match bi fédération bi jaruñu ñu lay woo boo defee preuve ñu woo la président bu defee boo defee preuve mu woo la kon bul ne woo leen ma wala masque bi nu ma ko joxoon nanu bàyyi gis nga bu yàqante bii daqee la daan am ba daawuñu ko indi ku ne di xaar ku la woo ngay suul fi di gas fi ndax bëgg a récupérer nanu ko def te xam ne sunu réew la sunuy doomay fubal kër goo dugg am na gone guy na bëgg a doon jour am na ñoo xam ne dañoo dem daara ja jàngi ba ñëw am na ñoo xam ne ñu ngi ci daara yi di jàng te seen xel yëpp mi ngi ci football te mbégte réew la gis nga réew lépp lu koy naatal mi ngi delloo sunu réew ci li mu nekk nanu ànd liggéey sunu réew mi jour yi ay doom la lanu ñun ñooy seeni yaay dañoo bàyyi ay yaay ci kër ga te yaay yi nu am ay sénégalais lañ dañuy dem tour dañuy dem ngénte ay doom yu sukkandiku ci seen réew pour defar seen réew la nañu bàyyi liggéey bi ñuy mburaake ne woon naa leen nag liggéey bi kenn du ko mburaake kenn du ko suul kenn du ko netatu kenn du ko ceeb bu weex liggéey bi dañ koy teg ci terrain bi. defek seen te maa ngi ñoom ba coupe du monde incha allahu rabbi bu neexee yàlla borom maa ngi ñoom ba coupe du bi nag nii laa ko trancé woon mi ngi vaar dem leen seet soxna Aida ak liggéeyam mooy dem leen vaar vaar mooy génn preuve balaa match di am dina wax te bu match bi amee ci kàttanu yàlla ak doole suñu borom ma delloowaat lépp kun fayakun moom mi ma dooleel moom mi ma kàttanal waaye di wax jërëjëfati sëriñ Saaliw ndax nag génération bi àdduna bi àdduna bi ngoney sëriñ Saaliw lan moo tax nag sama lii duma ko fawe ndax def loo na ma lu baax fekk naa fu dara néew ma def fa dara ba ku ma cay fekk fekk ma ci man nii laay doxee sama réew luy defar réew mi rek ci laay nekk kon yaay booy yaakaar naa li match bi li ñu yëpp euh, noonu la demee am na euh, yaakaar naa aussi tam ñëwaat nañ nga di corté ko lépp yaakaar naa comme li nga wax rek doo xaar ku la woo. Hmm. dama leen ne 3 bi en 1 buy am dama ñëw ne trois bi en 1 gis nga booy booy wax ci match. mu noo wax nit ñi lu clair net wax leen match bi ni muy doxee ci biir stade bi munoo leen a wax jour i nan lañ leen di classé munoo wax bi nu muy doxee ak match bi ban temps lay am ak ban temps la preuve di am noo jarul ngay wax ci match bi bu nu yàqal yow demal nga toog. mais ñuy wax ay soow mu ñu la. non soow amul bu xam nga man maa fi génne woon soow Coupe d'Afrique. maa ni woon kuy loolu sénégalais yeeg tiktok yeeg xale yëpp xam nañ ko kon boo génnaatee ci match bi ñu war a dem coupe du monde nga naan ay sow mu weex tàll soow bu weexul day ñuul. mais yow tamit xam nga am na yoo xam ne tamit da nga koy wax ñu lay seetaan di sa boo amul programme man bi ma xamee ne contre Égypte ak Sénégal billaahi génnuma ci oh, internet parce que xam naa lépp mais du sama cër man ma nekk ci sama réew xale yëpp préparé di xaar mbégte man ma leen di gott damay toog jàpp sama njàmbur nekk ci beneen affaire bàyyi yëf yi dox te xam ne bu ñëwee bu dee mbégte sama yëf la bi ma ñëwee laaj ma ko dama la ni du ma ci debaa mais du ci débat parce que aw ma ci débat mais bi ma waree am débat damay pàqat ñu di fecc avant match bi di jeex bu ñu matché ba pare ma continuer di fecc continuer di feetu parce que lii la laay xaaral sama réew nit njariñ nit njariñ nit kenn nit kenn du ko méchoui kenn du ko petit pois kenn du ko macaroni kenn du ko vermicelle kenn du ko tàndarma eh nit njariñ nit am njariñ ku jaaxle ñun ngay wër kon war nañuy mën a dimbali nit ñi ci preuve seet gi boo seetalee nit war nga ko cee mën a wax li koy gàllankoor ak li koy tëye ak li koy kale war nga koo mën a génne sarax boo man samay sarax moo gën sangu samay sarax moo gën ndaw mba barke sëriñ sa déwoo dafa garaaw dañ koy fay ñun secret sarax la lii ñun yenn saa ñu dugal ci nit kàmb gu mu xamul ñu baree ngi seetlu ak ñu leen ne li saxaaral ñoo leen dugal ci musiba gis nga kii boo saraxee li mu lay wax ci sarax lii man soxna ay Aida su ma la seetalee wax la sa sarax bul sangoo butéel bul takk téere jour yi am na ñoo xam ñu ngi toog ci banc touche xam nga lu tax gun ci biir stade bi lu tax Aliou Cissé woo provoqué gu leen ñu fubal sarax yañ leen wax a diis gis nga mbirum fubal ku la ciy rendiloo moytul kooku Euh, football alalu jinne la boo demee ba ci stade bi yow bal bi li la koy jox nga koy teg ci yoon wi nekkatul dara lu dul alalu jinne la. nga ne football alalu jinne la. football alalu la. dégg naa dëgg de. Karamba Karamba Karamba borom Mbour. Karamba borom de jinne la lu waxoon ko de dama ne. football bu ñu demee ba ci digg stade bi. match Sénégal yi fi am yëpp. match Sénégal yi fi am ñii match Sénégal yi fi am yëpp soxna ayda day dem ba ci biir match bi ñu gëlëmal joor yi parce que li ñu defoon mooy mbëkk yooyu dul woon dugg buñ ko jàppoo woon noonu sa bii du dugg mais dangay dem ba benn moment nga tekki match bi match boo ko tekkee joor yi mën a jaarale bal bi fi ñuy fi muy jaar. dama ne gis nga yoole yoole ñu ngi koy way waaye yoole yoole bii la. am na son boo xam ne sax bu tombeek mu génn ci période ci période football dafa am football lu koy naatal gis nga boo nekkee président te amoo loo jig sa réew. day téye bal bi parce que mbégte la naataange réew la kenn ku ne da koy def ay jinne ngi ci biir football bi di ànd ak yow di ko football football bi jinne yee koy football eh doomu jinne laa jinne duma jommal man doomu jinne laa jinne duma ma jommal waaw yow boo amul junni nooy amee jinne junni nooy amee jinne boo munta faj boo ndoxu cité ba yàqu nooy fajee ndoxu cité ah mais nañ ñu bàyyi xoolal lii nañ ko jox ñi ko moom soxna Aida bu la seetalee wax la sarax sarax boobu bu sa palaas ne woon dañ lay wàcce tey ngay gën a samp ci palaas ba te duma la jox butéel de doo sangu doo takk billaahi sarax moo la mën a defar ba nga taxaw ba samp àdduna bi yëpp di la dégg mii sarax moo la mën a yàq fay la ndax dañ lay wax loo xam ne du sa sarax moo tax seetkat yi ngeen di dem dee leen ko xool bu baax ku jóg ne damay seet ku jóg ne damay seet ku jóg àbb say mbubb yu rëy sol di ratatati du loolu affaire bi da ngay sol mbubb mu oyof da ngay sol mbubb mu oyof di wane preuve ci sa réew soxna Aida dem leen vaar wow ma kenn lu ma war a am rek nag sëñ Touba dimbali na ma sant naa bu wér man ba ma amee Serigne Saliou laa doon multimilliardaire ba ma amee Serigne Saliou laa doon multimilliardaire man xoolal njël bi mooy sama jamaa muy sama urus. barke Serigne Touba Mbakke dama ne la man jooyatuma dara. xam nga lu ma jooy mooy réew mi bu naree jaaxle yàlla na ma fekk ma mën cee kàddu wala ma gis lu ma war a kàddu du ma dugg nag ci dara lu ma warut a dugg lu ma war a dugg rek laay dugg ci yoon wi rek laa koy teg waaye li bëgg naa cee baaxee àdduna am na ñu des nag ñu des laa bëgg a dimbali ndax jour yi am na ñoo xam seen yaay fay nañu ay centre ba dee ñu daj lu nekk war a nekk ci biir terrain bi war a war a football bi leen rek a ci war a nañu bàyyi réeróo bi. réeróo bi mën nañoo indi coupe du monde. sarax yi dama ko côté ndax man samay sarax du ma ko jël joxe ko ñu koy partagé dañ lay yàqal say sarax modifié ko sarax coupe coupe du monde bi mi ngi ak soxna Ayda. dama ne ak ñi war a fubal ak ñi nga xam ne dañ la war a ay texte ci réew bu ñu mënti nekk soxna Ayda moo yor mbirum fubal secret fubal maa ko yor damaa pour trouver nag nañ dem voir xool samay vidéo xool heure yi ma ko wax xool heure bi match yi di tàmbali xool lan mooy match yi match yi maa ko moom maa tax naar yu bari pare foot dañ ko dañoo tëj seeni i société ndax lu ñu teg plan bu ñu teg ma teggi nga dégg li si wax sama yaay nee na macha allah secret football moom moo ko moom loolu nag yaakaar naa jarul ma koy euh, euh, waxaat euh, nit ñi teg nañ seen bët macha allah képp koo xam ne jour nga wala yaay jour nga rek bëgg def ay ñaan wala sarax rek nga woote ci numéro yi ci barre d'écran bi sama yaay incha allah dina la wax loo xam ne dara du ko yaay booy